boo gaa koy togg ku ñemewul du ko togg. waaw aywa xamuñu loolu. xamuñu loolu ñoo loolu leen ma lu ma lu dàq ci ceebu maam Ndiaye bi maam Ndiaye ba mu nee ñaari góor yaa rek mer soo da maama wokk biisu xam naa dafa ne wuy sama ne yàqu naa <laughs> ba mu nee ñaari góor yaa ci la meer bi xool biisu rek maam Ndiaye tegaat ci ne gën waa liibaru suukar. ñaari góor yaa rek xale tëb. <laughs> rek meer bi ne waa ñun ñu jébet moom maa baax na ci ñun. oui eh, man Adi Mass ba mu nee ko escorté fils mairie dañ ko escorté rek laa mairie nëb nañ <laughs> mais dikku tamit noonu la ma rayee dikku nee na ndekete man mënu ma dara.